sama gars yi jàmbool ci sunu atelier photo bu mujj bi affaire euh, correction de couleur euh, dama leen ameloon tutoriel bii nii maanaam euh, traitement de couleur wala correction couleur naka ngay jógee ci fichier raw bii nii pour egg ci fichier final bu mel nii nga traité ko ak caméra raw rek sans Photoshop léegi fichier bi boo ko ibbiwee euh, directement donc Photoshop moo koy ibbi bon caméra raw moo koy ibbi biir Photoshop parce que caméra raw plugin la pour Photoshop plugin bu nekk biir Photoshop euh, li taxoon ma tànn photo bii nii c'est que bii dafa flat maanaam dafa dafa plat contraste bi dafa neutre exposition bi dafa neutre amul lu surexposé amul lu sous-exposé et éventuellement couleur yi cool fine léegi Euh, donc ñu ne surexposé wul sous-exposé wul maanaam que donc euh, exposition bi bu euh, war nañ ko mën a wàññi war nañ ko mën a yokk léegi mais ñun dañuy yokk exposition tuuti rek léegi ñu def par exemple zéro point cinq zéro point cinq contraste bi tamit dañ koy yokk donc contraste bi mën nga mën nga def lu la neex dépendamment de li nga bëgg parce que contraste li muy def mooy dafay jël parti yu weex yi mu gën leen weexal yu ñuul yi mu gën leen ñuulal xoolal par exemple fii xoolal par exemple fii contraste bi mi ngi à moins cent bu nekkee moins cent gis nga fii ni muy mel na lu xàll fii nii dafay image bi dafay mel na lu xàll ko léegi plus ngay yokk contraste bi boo xoolee donc day gën a parti yu lëndëm yi comme fii nii day gën a lëndëm yii dafay gën a weex xoolal donc benn instant sax fii nii am nañu euh, loo xam ne mu gën a commencé am forme boo xoolee image bi mi ngi woon nii fii nañ tàmbalee fii nañ egseegum fi ñu tàmbalee fi ñu egseegum euh, mën nga ko sax séparer en deux pour que nga mën a xool nan ak nan ngay évoluer parce que déjà bu ñu egsee fii rek am nañ dara mais euh, soreeguñu parce que ñu ne lan euh, dañuy yokk donc euh, contraste bi yokk kii defar réglé waat couleur yi mu gën a pop parce que bu ñu fàttewul ñun sunu image bi nii la mel alors ñu dellu si ci caméra raw highlights yi highlights yi donc moom mooy yu weex tàll tàll tàll tàll yi nii donc lu tax mu intéressant c'est que highlights yi boo ko wàññiwee da ngay récupérer ay information gis nga ni ngay récupérer te bon gis nga sax doon ko wàññi bu mu sës pour récupérer information donc yokk nañu sunu contraste bu mu sës wàññi nañu sunu highlight bu mu sës et fi mu nekk nii nii ngi commencé tàmbalee am photo boo xam ne eh bien daanaka mi ngi tàmbalee ñu roog dara euh, bon shadows yi shadows yi whatever shadows yi mooy ombre yi mooy partie yu lëndëm yi Euh, mën nga ko wàññi mën nga koo yokk dépendamment de li ngay wut euh, white si mooy weex général bi donc weex général bi euh, pour mën nga yokk mën nga wàññi ah ça dépend en fait en général mooy tax sax image bi gën a xaw leer nii gën a pop xam nga gën a am ñam quoi gis nga boo ko yokkee nii da mën a am dara daal mais bon ñu yemagum fii Euh, léegi blacks yi mooy pixel yu lëndëm yi léegi pixel yu lëndëm yi mën nga wàññi mën nga yokk boo ko wàññiwee par exemple gis nga ni mu commencé indi fii affaire bu xoolal gis nga ay indi affaire bi mu commencé am benn leer bu leer nii bu xam ah, am dara nii léegi clarité bi moom mooy moom en par exemple sànq dama ne euh, contraste bi moom mooy extrémité yu weex yi ak extrémité yu lëndëm yi clarité bi donc moom mooy diggante bi nag yu gris yi parce que bii bu nekkee extrémité bii bii nekk extrémité bi bii mooy gérer diggante bi loolooy tax affaire bi di gën a mel na lu net euh, léegi boo xoolee fii am nañu rouge buy d'abord léegi rouge bi noonu ko corriger tuuti waaw gis nga shadows yi moo taxoon. Euh, mooy un moo ñuy indi un ci affaire wu u si vibrance parce que vibrance euh, moom ak saturation dañu am benn genre affaire yu leen wutale tuuti quoi parce que vibrance moom couleur yi pop déjà lay lay génne. Euh, saturation moom lépp lay saturé ndoo en même temps fii sa ne du marché trop ndaxte ñaari couleurs yi presque ñoo tolloo. boo xoolee verte bi ak bleu bii nii ñoom ñoo xaw a tolloo mais verte bi ak bleu bi verte ñu bleu wuñu euh, parce que li ma doon wax mooy que coucher de soleil la woon coucher de soleil euh, balance de blanc bi nii white balance bi du white balance am euh, parce que bii dama tourner rek dal ci action bi xam nga koj léegi white balance bi mën nga essayer fii prédéfini yu mu lay jox euh, bon mais euh, donc bon mun nga essayer ah ça daf lay jox yi ay automatique euh, daylight euh, bon en fait achat achat euh, en fait coow li la mooy que euh, fii mooy couleur couleur secondaire couleur complémentaire entre bleu ak jaune yokkee bleu boo yokkee bleu mu gën a bleu boo wàññee bleu mu commencé jaune gis nga gis nga nga commencé ngay yokk ngay yokk jaune buy gën a jaune bleu beeg vert bi di disparaître donc euh, ñun ñu ne coucher de soleil na nekkoon donc dañuy yokk jaune yokk bleu euh, na 7000 ça c'est cool léegi ñu commencé mën a yokk sunu oops sunu vibrance ak sunu colors euh, bii nii moom xaw naa kii de wute nag Euh, ah tiens am na bu ma fàtte woon euh, maanaam euh, crop pas léegi crop bi mooy rognage rognage en fait c'est juste recadrer ah parce que booy composé wala booy recadré booy cadré sa photo dafa am nu mu war a cadré woo loolu dinañ ci dellu si peut-être si yeneen tuto ah mais bi idée bi lan la mooy que léegi paxu vague bi di nekk paxu vague bi mooy nekk ci digg bi et à partir de digg bi diggu euh, pax bi bu xoolee léegi dina gis yeneen parti yi parce que bët dafa so euh, euh, presque in the digg la yes mangoo ko léegi ñu dellu si si sunu image bi xool un peu yeah voilà mi ngi commencé ñu rek dara bon dina xaw a léegi en fait booy sat léegi boo ko boo ci paree en fait booy sature si la lay mën a nag léegi jox yenn affaires yi si la lay mën a jox yenn affaires yi euh, voilà donc euh, voilà hmm. bon alors bii moo gën a euh, alors bi moo gën a oups wàññi tuuti ah euh, donc am na benn bagage bu sew ma fàtte woon euh, yi li ñuy woowe grain lii ñuy woowe grain alo euh, donc grain yi particulièrement clarité bi clarité dara la ci ah mais mën nga ko wàññee fii ci luminance donc luminance euh, waaw euh, 40 frais la faire li moo li moo tax nag tape tape valeur yi boo xamee valeur yi di ko tape moo gën parce que bon souris bi dafa soof euh, et gis nga donc disparaître na amatoo yenn amatoo yenn grain yi euh, waaw gis nga gis nga donc c'est un peu ça le truc et voilà sunu euh, image baa ngi nii ah euh, voilà moom ak bii nii ñoo c'est à peu près pareil donc affaire bi ay kii la rek donc ngay tuut capp tuut capp ba am li nga bëgg euh, léegi à partir de fii nii ah euh, comme ñun doon xool sànq avant moo nekk nii après moo nekk nii rien que avec rien que avec caméra raw gis nga boo xoolee un peu sunu virgule bi ci virgule ci biir virgule vague bi eh ben daanaka gën a leer et cetera on voit mieux couleur yi gën a leer donc lii mooy euh, ligne traitement basique ah, affaire correction couleur ci caméra raw ci kaw loolu salaam jàmm pe